qui n'a ménagé aucun effort pour que ce rendez-vous dédié à Momor Diara soit inscrit en lettres d'or dans le calendrier mouride. Le remercier au nom de toute la famille de Cheikh Ibrahim Fall qui a eu l'ultime honneur d'être le parrain de cette journée ô combien mémorable. Cher frère Mourid, vous convenez sûrement que perpétuer l'œuvre de ces grands hommes tels que Mamor Diara devient un impératif dans cette société où la dégradation des mœurs, le manque de repères instructifs ont fait irruption et gagnent de fond en comble du terrain. Il sera alors question, tout au long de cette journée, de s'imprégner de la vie et de l'œuvre de Borom Sam, frère d'Ahmadou Bamba et son alcooliste, Mam Ibrahim Fall, pour ainsi fuser les grosses lignes nous permettant de raffermir notre place de mourir dans cette vie ô combien de tumultude. Ainsi donc, votre présence dont je me réjouis laisse croire que cette journée de sagesse appartenant dorénavant à toute la communauté mouride soit inscrite dans le calendrier de tout un chacun. Honorables convives, je déclare ouverte la première journée Mamor Diara dédiée à, Mam, dédiée à Mam Cheikh Ibrahim Fall. Que lampe Fall qui brille de mille feux du haut du minaret éclaire notre route. jërëjëf Serigne Touba Diaw Cheikh Ibrahim Fall. barkalla Serigne Manel Fall euh, Mangi Fatrini, Moum Serigne Saliou Fall Moum Serigne Modou Moustapha Fall egsi na léegi dafa toog ci suuf waaye ñu ngi koy siyaare bu baax. di siyaare bu baax Assane Seck bu Sonatel bu Thiès teew na fii ca jig moom xam ngeen ni mboor mboor la waaye ban dañ la dëkk ñu ngi koy siyaare bu baax sëñ Moustapha imam na fi yépp Cheikh Baba ndax daayiru jaaru day ñëw na daayiru jaaru daay jërëjëf waaw daayiru jaay day serigne Cheikh doom moko ko ñëw na ak cheikh Modou Fall Bey ak daayira ahlul xadim waa kër cheikh Baba Gise ñoo ngi leen di siyaare bu baax baax gis nañ fan yi yëpp liggéey bi ngeen def waaye loolu lépp Mamor Jaara moo tax ngeen di ko def yàlla yàlla fayal nu leen. ak daayira maam Jaara yi. ak daayira maam Jaara yi nga xam ne yëpp tabarkàlla boo koy seet. soxna Soda Mbaye soxna Soda Mbaye moo ko jiite ñoom it ñëw nañu ñu ngi siyaare baax njabootu euh, Mamor jaar bu jigéen ñoom ñu ngi ñuy toog ñoom ñëpp incha allah ku ne mën jaar turam rek danañ ci jaar. Euh, xam naa fekkante ne jiili ba majalis seen jiili yaa ngi defal le discours wolof en discours en wolof tubaarkàlla comme ni ko sëñ Mané defee rek gis na ni ni ngay jàpp ci liggéey bi yow tamit tubaarkàlla di jàmbaar lool ñu jox la kàddu gi nga wax sa discours en wolof bisimilah. bisimilah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وعلى خير خديم رسول الله mbokk yi noo ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm di leen it masawu coono yi bu baax tey jiital ci nuyoo boobu ak ziyaar bi ki nga xam ne moo fi cheikhul xadim di cheikh sidil muxtaar di suñ borom di ñaan suñ borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di am mbégte lool it ci bokk génn jataay bi nga xam ne mooy journée culturelle Mame Mor Diarra muy journée boo xam ne dañ ko dañ ko organiser ci comité d'organisation bi nga xam ne moo saytu loolu te sëti Mame Mor Diarra yi nekk ci ak taalibe yi kër sëñ Mor Diarra yëpp ci njiitul sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Cheikhouna moom sëriñ Cheikh Penda te loolu ñu ngi ko def ginnaaw bi ñu ci amee ci ndigalul seen kilifa ak ci jàppale muy ci kilifteef ki nga xam ne mooy sëriñ Abdoulahi Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa maam borom sàmm waaye bés bi nag ñu dara jaaleel ko ki nga xam ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin mi nga xam ne kenn la woon ci borom sàmm bés bi nag li tax ñu amal ko mooy xam xamal àdduna sépp kan mooy sëriñ Mor Jaara ak xamle lenn ci ay jaar-jaaram ngir jullit yépp mën cee jariñu ak taalibe yépp ak àdduna sépp ñu xam xamle itam relation yi nga xamoon moo amoon ci diggante Serigne Mor Diarra ak Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne moom la ñu ni ñu dara jaalee ko bis bii ngir feddali kóllëre gi doxoon ci seen diggante ñoom ñaari jàmbaar yooyu te seeni sët wéyal ko ci gën a jàppante ak dimbalante looloo waral ñu tuddee bis bii ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Fall te gu gis teewaayu gi nga xamante ne bii moom la njabootuk Cheikh Ibrahima Fall ci bis teew ci bis bi dina xam ne bis bi ñor na leen te def nañ ko seen bis te it bàyyi nañ ko xel bu baax kon daje gi nga xam ne moom la waa kër Borom Sam di daje ak waa kër Cheikh Ibrahima Fall daf ñuy fàttali rek li nga xam ne moom la arab yi di wax attaarixu yuaydu aw yuaydu nafsahu te dunduk Borom Sam day loo xam ne lépp njariñ la ak i yeete moo tax ñu xam ne jamono dafa laaj ñu révisé waat ko jàng ko def ko mu nekk modèle ngir ñu man cee roy ngir moom day koo xam ne ak ñi mel ne moom jaaruñu fudut yoon wi nga xamante ni bii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon te mooy ki ñu alxuraan digal ñu roy ko ne suñ borom moo ne ñu laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon mbokk yi fi teew initiative bi ñu jàpp rek ne lenn la ci li tax ñu amal ko ci kaw ndigalul kilifa yi tey ñuy ñuy ñaan bu baax nag sunu borom ñu daje ceeg ngërëmam te daje ceeg mbégum Serigne Touba ak maam borom Sam mi nga xam ne moo waral bés bi ak Cheikh Ibrahima Fall mi ñu ko tuddee wasalaamualeykum wa rahmatullah. Euh, jërëjëf sëriñ Jili ba maa ngi fàttale nii yéen ñëpp xam ngeen euh, site boobu wala boog majalis ngeen di ko dégg mu jëm ci littérature. xasida yéeg di wane liggéey suñu xadim euh, sëriñ Gànna ñu ngi def premier jour culturel bu sëriñ Mor Diarra am na ñoo xam ne ba ñu tàmbalee yàgg na ay atak yi ñu ko def waaye dama ne lu jot yomb saal bii feesal ko yóbbu waaye xam naa ne sëriñ Mor Diarra kenn demu des te ay ay ay kilifa ay tànneef rek ña fi taw Cheikh Baba dama ne barki démb ci télévision bi maag yow bu Serigne Mor Diarra bëggoon cër kenn du seddu bëgg ko de. bëgg na nga ñëw ci kan mooy maam Mor Diarra waaw bëgg na lool tey ñu xam nag ñu bari xamuñu ko waaye dama bëgg wax ci loo xam ne dana yéem ba ñi fi toog xam ne maam Diarra maam Mor Diarra kenn du ma bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكي جلدي بكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نغلين دي نويو نويو جلد أنبكم جلدتم جلد di leen nuyu nuyu taalibeek mbokkum taalibeem di ñaanal a Cheikh Seyd al Maxtaar sunu boroom yàggal ko fi dolli ko kàttan ba mu motti lay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasuul di ko ñaanal mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa gi yépp ak kilifa diine yépp ak jullit yépp ak taalibe yi di ziyaare bu baax sëriñ Abdullahi Mbakki yàlla ay buur mi nga xam ne mooy xalifa maam boroom Cham di ko ñaanal yàlla suñu boroom yàggal ko ci kanam njaboot gi dëgëral taxawaayam ba mu mottali ay yéeneem ak ay naalam siyaare suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di doore suñu nuyoo ci Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké ibnu Cheikh Ahmadul Fadal ibnu Xaadimu Rasul di sunu Serigne di sunu xarit noo ngi koy nuyu baax di ko ziar Serigne Cheikhouna Mbacké noo ngi jël nuyoo kilifa yu baax yi fi nekk yépp ak mbooleem njabootuk maam borom Cham gi fi nekk di ko teg ci sa loxo di ñaan yàlla sunu boroom it taxawaay bi yàgg te yéene yépp yàgg di jël nuyoo di ko teg ci loxo Sëriñ mbakki Fall di ko jaarale ci mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di sant yàlla nag bu baax ci jataay bu am solo bii nga xam ne jataay bu màgg la jataay bu tedd la muy bis boo xam ne dañu koy defal maam boroom Cham te duppee ko walla tudde bis bi maam Cheikh Ibrahima Fall nu war a sant yàlla nag bu baax nun ñépp ngir li tax nu war a sant yàlla mooy bi nu yàlla defalee tawféex ak ngëneelul nu mën a fekke bis bu ñuy defal Maam Mor Jaara kenn ku nekk mën na caa am ak cant yàlla ndax lépp lu baax lu ñu yëkkati di ko defal boroom saam mbégteem sëriñ tubaa la te mbégteem sëriñ tubaa nag ñi doon dox ci àdduna bi yépp àndoon ak moom loolu rek lañ doon sàkku ndax képp koo xam ne làmboo na làmboo na mbégteem Serigne Touba làmboo ngërëmam kooko mooy am li ñuy tuddee saxaadatu daare ni muy texek àdduna ak alaxira ba tax na am na ca mag ñu baax ñi sax ku ca doon bind di wax ne képp ku dem siyaare ji Serigne Touba ngir ak jub rekk faw nga làmboo ak texek àdduna ak alaxira waaye faw nga làmboo mbégte من زاره لهدى يهوي سعادته والبشرى من الله كي نوي دفع البسبيتين دايكو متى وقتاني سخ خاتنا ألف موي فرال دي وخني خم ديو أك نيك خم ديو waaye fi ne sëñ tuba mu baax mi nga xam ne fu baax nekk moo moo moo ko fa def am na béréb yoo xam ne boo ko fa laajoon duñ ko xam dem naa ci benn dëkk bu ñuy wax Edmonton benn waaye di ma laaj na ma loolu doon ma ne ko man jullit laa mu ne ma kuy si sëriñ ma ne ko sëñ Tuubaa mu ne kuy kooku kon moo tax bu ñu waxee xamle borom saam du caagee nu xamle ko waaye ku ñëpp xam moomut démb rek am na ñu ma mën a seere naa ci boo xam ne ba ñu doon fa waxtaanee borom saam am na fa magu murit moo xam dane ma man de yàlla na si yàlla na nga gudd fan ma ne ko ami mu ma lii mosuma koo xam ci borom saam yàlla xam ne loolu la ma si wax te mag la na ma mosuma koo xam ci borom saam ma ne ko man de lima gis modi di ne fi ne bu fekkone waxuñu oh, ci ay jaglem wax ci melom ak lepp waye ñu tan rek ngoruk mam Mor Jaara Borom Saam rek ak ngoram ko gëm dong bu ko waxtaanee won te nit ñu roy ko aduna bi problème tu am manam iñaan day jeex rëy jeex lepp jeex buñ ko royon ci ngor ak nungu gëm yalla buñ ci royon Borom Saam yi nga gis yépp tu am ndax Borom Saam da daan nawe waye du ñee du ñaati sunu jamono nag jamonoy ñeyaate la waaye du jamonoy nawaate ndax mbubbur la ñuy nawee nit ak wata bu rafet ak situation loolu nag boo ko amul rek iñaan la lay jural ndax ku ko yor nga ne def ba ko bëgguma ko te fekk boo sañoon am ko xam booy ñëw Dakar doo dox wala nga dugg ci biis yi da nga yor bu baax boo ko amul ba nit yor ko nag nga naan ah sawaay daal da koo lijjanti rek xam nga loolu yaa ngi dugg ci problème mu iñaan ak yeneen na ngi lay gaar ñoom nag dañ daan naw nit naw nit ci jëfam ak fa mu tege waaye daawuñu ñee nit loolu moo waral fii ne relation bi borom saam amoon ak Cheikh Ibrahima mooy bi mu am ak waa kër Serigne Touba yépp njabootu Serigne Touba yépp foo dem bari na béréb yooyu dem fekk fa aw turam moom mu di koo xam ne it dana doy sëkk ci moom ñu ne la bi Serigne Touba di tànn kum mu bokkal moom la tànn bokk ak moom wenn way jur wu góor ak wu jigéen loola loola loola rek doy na ci bu fekkoon ne kuy lu ñuy puukaree wala ci àdduna ndax seigne touba mom lum def da tan seigne ibrahim Ibrahima Jóob almachan yi nee na ixtaara maxtaarahu lmuxtaaru necmalahu wa huwa mukhtarun wa mukhtar mom moom fay lay dik fek ay tanne mu tan ci motax mune ki nga xamne dafa nek tanef nak mu ñëw tanal bopam borom saam bokk ak mom soxna jaara bokk ak mom seigne Mor Anta ba noppi nangoo tànn nit maam Mor Jaara di kilifaam maanaam tànn xam nga sëñ bi mënoon naa bokk ak moom ba noppi def ko di magam waaye sëñ bi tànnaat it mu nekk mu nekk kilifaam maanaam mu nekk magam te boroom saam sëñ Mouhamadou dem mu baax ma boroom xam-xam bu bari ba te rafet dafa waxoon ne sëriñ Touba de kenn xamul lu mu doon waaye borom saam mat na sëkk borom jamono. sëñ Tuubaa la kenn xamul lu doon waaye boroom saa mat na sëkk boroom jamono daal di wax ne ñaari it li ma li ma gis ci borom saam ci ñaari yi gisuma ko ci kenn muy ngemeeg njaboot ak jaamu yàlla sëñ mu dem nee na gisuma ku mel ni borom saam ci ngemeeg njaboot waaye gisuma ku mel ni moom it ci ak jaamu yàlla loola tax na ba bu nu nee la kat boroom Saam mii de daana naafila téeméeri rakka ñu ne ah loolu de kon moom ndax ak dundam jot doon na ci am ak féex ñu ne déedéet ndax mës sa moom boppam ci dara laay alxuraan yu baax yi nga xam ne dañ caa tagg gaay yu baax yépp demal nga jeex laaye jula neex boo jeexee da nga cay fekk maam borom Saam ki nga xamne kon dafa boole won jaamu yàlla ak nungo dimbele jaam ñi ci lamu am defena naa ku ko seet ci biir tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa yunfiqun da nga fekk foofu borom sham muy fanane jaamu yàlla di nafila di dimbele nit ñi te loolu serigne bara Cheikh Mouhamadou Lamine bara ibnu Cheikhul khadim bind na loola dinu leeral maam borom sham dafa waxoon ne yabiitu yusalli suma yusbihu saaima wa ma juuduhu illa ka amtaari waabili sëriñ baara nee na fanaane julli xëy di woor te tabuk borom saam day mel ni asamaan su xotti ko rek ni ndox mi sotti ko nee na noonu la tabe woon nekkoon koo xam ne it dafa taqoo woon ay awraadam waaye nekk boroom xam-xam boo xam ne dafa làmboo woon xikam waaye képp ku mas a wàcc fi moom it mu digal la teg la ci yoon jàngal la nekk aji yeewu joo xam ne it ak boroom ngëneel yoo xam ne it di ku baax kuy baaxalaate di koo xam ne mës a daj mukk ci di muur ayib bindeef yi nga xam ne nëbbkatub ayib la ci képp ku mën a nga xam ne du gis ayib bi kenn ngir melaw bu baax ba nekk ca moom ak jagle nga ko suñu boroom defal mu jëkk a dégg ñépp sëñ Tuubaa moo jëkk a dégg ñépp sëñ Tuubaa ba muy wax mag ñi naan leen seen waa jii de woowu leen ba ngeen ñëw mu door a wutib añ waaye da koo am ba noppi door leen a woo kon moom teel naa xam kat mooy Cheikhul Khadim moom borom Cham ndax moo ndax moo tax mu ne sëñ Tuubaa kat ba ngeen ñëw mu door a wuti lu leen jox waaye daa am lu leen jox ba noppi door leen a woo te teel a xam gim teel a xam sëñ Tuubaa tax na ba xam ngeen ne bu ci daara ji buñ masaa soññee xeeti xéewlu bu jong yi jógee yenn aliw yi jaxasoo ak daggiti këyit yi sëñ Tuubaa bu masaa jóg ci yooyee lay nekk di ko dajalewaat ak a borom saam da daan joxe ndigalul nu fàggul ko ngir xam na ne lee mu nekk moo ko gën a yitteel ci lii ñuy xewlu kon teeloon a xam gi mu teeloon a xam sëriñ Tuubaa waaye sëriñ Tuubaa it xam gi mu xamoon borom saam ak wàccuwaay bi mu joxoon borom saam ak junj gi mu daan junj nit ñi kan mooy borom saam damay wax ne waruma ji Sëriñ tubaa joxoon borom Saam taalibe yi sax mënuñu koo jox sëñ bi maanaam njàmbaaru taalibe yi luñ bëgg-bëgg sëñ bi ak luñ ko jox jox pësiyeef amuñu pësiyeef bu toll ni jox sëñ Tuubaa waruma ju toll ni waruma ji sëñ Tuubaa joxoon borom Saam nga xam ne sëñ bee ko joxaloon boppam borom Saam am na bis ci ci njëriñ sëñ bee doon waxal boppam ci baaxu borom Saam te jafe na sëñ bi tudd tudd tudd yu mel noonu sëñ bi jafe na ci lool ndax léegi-léegi sax ñu tudd ko nit mu ne bàyyi leen seen foyi te dem jaamu ji yàlla wax nañ ko ko ba tey tudd nit naw ko wax ba yeggal mu ne bàyyi leen seen pomi te dem jaamu ji yàlla am na bis boobu moom bi muy waxtaan ci borom Cham fa la fekk soxna aw busu ooy juru Cheikh Abdoul Fadal keroog sëñ bi wax na ba wax lu kawee kawe ci borom Cham soxna aw busu mii daa jóg taxaw na ko yow de ni nga waxe ni nga waxe Mbàkke daa mel ni da ngay yàlla borom Cham di yonente bi sëñ Tuubaa na ko xaw ma moo yonente ba mu déedéet waaye balaa kenn jariñu ëllëg daa jaari fa borom saam balaa kenn jariñu ëllëg daa jaari fa moom ma nag mooy yonente ba mu waaye balaa kenn jariñu ëllëg daa jaari fa borom saam loola kon doyoon na ci rek ku sëñ Tuubaa yéemu ci yow ci saw melo ak sa jëfin ak sa doxin ba mu lay waxtaane moo tax bëgg mën a cër dañuy wax ne la sëñ Fallou daan wax ne koo xam ne boo seddoo kenn duutu séddu da ngay mujj séddu ginnaaw balaa kenn jariñu jaari fa moom ëllëg kooku moo séddu la mat a séddu la mat a féetewoo lépp moo ko féete féetewoo kon la ko cër ba mu am ci sëñ Tuubaa ak la ko sëñ Tuubaa jox ak doyloo ko ko sëriñ doyloo ak melawu sell wa nekk ci moom mu nekk koo xam ne it yaakaar naa li ñuy nekk li ci yoon wi li muy bari bari dana néew jëmm joo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ne fa mu nekk ngir ñëw fi yow ngir bëgg laa gis loolu borom saam mii la ko la ko la ko la ko suñu borom jagleel te la ca gën a yéeme bi sëñ bi yónnee di ko wolu ndaw la mu yónni dane ko ndax xam nga ni nga koy wooye mu ne ko mbàkke nees koy wooye mu ne boo demee nee ko bu féexee rek soxla nañ te bu ko jiitu nag di ko sonal maanaam boo ñëwee da nga naan sëñ bi nee na boo féexee xam nga néew néew ko kay wuy si sëñ bi xoola war ma ji bu féexee te boo ko wooyee ba noppi nag bu ko jiitu ngir fitna ja ngay doxee bu la ko toppee dana ko sonal ba mu ñëwee lan la ko sëñ bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day moo fi ñëwoon bëgg laa gis borom sàmm na ko ah, loolu day yéeme na lool ndax am na ñooñ de ko gisoon ci génn sax doy na sëñ bi ne ko ah, xanaa xamoo ne mbooleem turandoom yi yaa ko ci gënal mbooleem turandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp yaa ko ci gënal yow borom sàmm xaw ma ñu ngi jàpp nag li may wax par benn par benn ndax comme jotaay la boo xam ne day aajo ñay sara ba léegi ñu leeral ko mooy nanga nga jàpp ne balaa kenn jariñu di ma wax nanga nga jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi nee na ne sëñ Tuubaa nee na ko yonent bi mboolem turandoom yépp yaa ko ci yaa ko ci gënal loola kon di ab cëram bu ko suñu borom jagleel ak melokaanam sëriñ Tuubaa yi daan moo daan digle nu màggal ko nu màggal borom Saam loola bokk na ci bi mu nekkee ci géej gi lettre bi mu bindoon moom sëriñ Tuubaa loola la ca doon digle loola la ca doon santaane loola la ca doon jàngale te mu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alxafizi alkarim wasalaatu wasalaam ala shafii alazim sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hada wa innahu min abdillahi taala wa qadimi rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallam muhammad ibnu muhammad إلى أخيه شقيقي محمد بن محمد خصوصا وإلى كافة الإخوان في الله تعالى وفي القرابة سيدنا بي دا فاخ ني بيمي جولي سي النبي صلى الله عليه وسلم نوبي نك دا فاخ ني ليتر بي تي من لا بايكو من خادم الرسول جيم سي تي مبوكم ميغا خامني دومي نداي لا تي موم دي ليبام دي مام مور جارا بروم شان مو ني دا ام نك سببو li tax ma bind lettre bi man Serigne Touba ta bobu mi ngi ci géej mu ne liko waral moy buma len leen ak ragal yalla ba nopi len top sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nopi ma ngi sama njabot gi nañu nek ak ak mam Thierno Ibrahim waye ma ngi len di denk nak na ngeen nek ak borom Cham. waaye ngir lan mooy ngir màggal ko nag da ko màggal waaye maa ngi koy digal moom it mu yërëm leen waaye yéen nag njaboot gi yéen ñépp jox naa leen war ma ju toll ni na ngeen fonk borom saam na ngeen màggal borom saam loolu tax na ba kenn mës sa ñëw ci borom saam di fa indi digal borom daaru seet si na ko bis boo xam ne ba mu demee bay takk war a dellu dafa yónnee na di yëglu borom saam na ko dangay dangay da ngay yëglu am da ngay nooy def dangay ngay joxe da ngay yëglu borom daaru na ko fii moom kenn du fi indi ndigal waaye dañ ko fi jële maanaam yow kenn du ñëw fi yow di fi indi ndigal waaye des fi jëlee ndigal rek kon war ma jooju sëñ Tuubaa moo leen digal na leen na ngeen ko waggar na ngeen ko maggal daal di waxaatit ne boo leen ko màggalee ba noppi nag mu mu mu mu yërëm leen kon njaboot gi bu fekkee jàpp ne la nañ nekk Tuubaa bu fekkee jàppandi it beneen béréb bu bu buñ mën a nekk nañ fa nekk te nekkee fa rek la nga xam ne moom laa bàyyi woon ci ñoom te doon leen ko digal sëriñ Tuubaa it noonee ko fonke borom saamin noonu la ko sëriñ Tuubaa jarale léppam xam ngeen ne bit bi sëñ bi jógee ci géej gi ba nekk daarul ma naan bi tubaab yi waree ñëwaat ngir songu si daarul ma naan te booba euh, ki ñuy wax aliis joxe ordre boo xam ne dafa waxoon bu ñu songee kërug daarul ma nan gi bu ñu melee ni kuy xeex ci kaw nañ jaar ci suuf ngir loru loru sëriñ Tuubaa ordre boobu lañu amoon fi ne ni ngay jàngee diggante sëñ Tuubaa nekkal ko dangay xool ci diggante fi sëñ Tuubaa nekkoon ci daarul ma naan ak fi mbaaxaan jóob campé woon ak fi buur siin ku ma loo campé woon ku ci nekk fi nga nekkoon ni mu wutee fii ci këru daarul ma naan gii mooy fi sëñ bi nekkoon fi gendarmerie bi nekk fi la mbaaxaan jóg nekkoon gendarmerie boobu ci gaarasu Dakar fi mu nekk fi la mbaaxaan nekkoon gaarasu Dakar fi nekk fi la Buur Siin Kumando fee nekkoon kenn ku nekk nga gis sa béréb na mu mel gis nga keroog tubaab yi ci seen boo demee ci seen rapport yi wax nañu ne ñaar fukki nit ak benn ya ya ya jaayante boon seen i bakkan ne Sëriñ Tuubaa du dellu mukk lu dul da ngeen a jaar ci suñ kaw def nuy néew ba noppi maam mool borom sàmm yi la ci jiital nga xam ne maam maam Cheikh Ibra Fati sëñ Moustapha Sylla Khadi Bawal sëñ ma Lumbe Mbakke sëñ ma Xuja Touré nga xam ne ñu bari kenn ku ci nekk nee nan balaa sëriñ Touba mii delluwaat noonu suñ bakkan bii mooy dem ba noppi mu doon lem defe naa kenn ku am importance ci sëñ Touba bu toll nii it keroog bi ñu ko yëgalee borom saam ne génn na àdduna lan la sëriñ tubaa wax bu du loon alquranul karim du hadiis nu njariñul bindee fi duutuma fanaan ci àdduna génn guddi ku jaral loolu sëñ bi nag la mat naa xalaat bu du alxuraan mi ak addis ak njariñul bindee fi génn guddi duutuma ko fanaan ci kaw suuf ngir ginnaaw borom saam génn na àdduna kon lenn lu ma jaral jaralati nekk ci àdduna man sëriñ Tuba amut waaye doy na ci it sëriñ Mbàkke Buso mu baax ma nga xam ne ku ne xam na xam-xamam xam moom sëñ Tuubaa yar ko yariñ woo xam ne ca yar yu jëkk yi la nga xam ne xiif ba mu daan xiif te ba mu daan xiif kër gi am na lu mu lekk waaye sëñ baa naan ko yàq yii bu ci sam xel dem te sëñ Mbàkke Buso nee na daanaa tëdd ba guddi mu woolom ba ma ñëw ne ma Mbàkke Buso bi nga xëyeeg léegi ñaati baat nga fi wax ñaati baat nga fi wax nee ma ne ko nit de nuyu na ma ma ne ko ana waa kër gaa ana njaboot ga ba wupp nee danaan ma bëriwut nag waaye boo léegi na gën a néew bariwul waaye ba léegi na gën a néew yaram te sëñ Mbàkke bu se nee na kooka kat sëñ Tuubaa huwal xaws wal miqyaas rabbaa xulubana wa ajsaamana fal kullu saafin wa naay yar nanu defar nu ba nu jag sëñ Mbàkke bu su ci ragal yàlla dem ki nga xam ne doy na ci tedd nga rek ñu ne la bi fi sëñ Tuubaa noppee nekk yaa ko taxaw xanaa doy na tedd nga kon lu mu seere dëgg la sëriñ Mbàkke bu su du gaa yi bu ñu indee addis dañ naan diwa ko solo diwa ko solo diw muy ku wér la ku nangam lu ñu la nett ci yoonu burit ne sëñ Mbàkke Buso te muy dëgg lu wér la benn marjeex bu ko gën a wóor amul keroog bi borom Saam mi wàccee ba ko sëñ Mbàkke sa tiimee lu mu wax dana ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku tedd ni borom Saam mi tëddaatul fii ci ku tedd ba mel ni borom Saam mi tëddaatul fii ci suuf ginnaaw yonent bi la wax kan mooy sëñ Mbàkke Buso kon xoolal li mu seere kenn ku tedde ni borom Sham mii nee na nee na tëddeewatul ci ci suuf ngir xam nga nu xam ab dayoom waaye xam nga ñu xam meloom ci digganteem ak boroomam di koo xam ne it mboolem jirim yi mboolem ñi ñàkkoon yi wéyjur seeni rongoñ a ngi fere ci borom Sham defe naa

ak maam Thierno Ibrahim yaakaar naa bisub talaata la ba ñu ñëwee fekk ci tool itam yónnee woon warga wa ba ñu waree warga ba ñu tollee ci xel yi lan la borom Daaru Muxti wax bala noo kenn naanub kaas na tagg boroom Saam waaye dama ci jël rek mujjantalu la boroom borom Daaru Muxti wax dane giñ ñaa ci yàlla ne giñ ñaa ci yàlla ne ki nu sowe mooy borom Saam danoo meloon ni ko ne ci pind boo xam ne dafa war a gawee ko te ci kàmbug sawar rek lay daanu kanutee daanu ca pind boobee nag mooy borom sàmm kon noo ngi sant yàlla ci bokk jamono gin bokk jamono borom sàmm te borom daaru ku néew lu bind la nag bayiti sëñ Mor Birama yooyee laa xam ca moom ak la defoon ca fettoo ak yi mu waxaat ci borom sàmm na amaat na waaye sama amaguma ko daal kon noo ngi sant yàlla la wax alhamdulilah fi noo ngi sant yàlla mi dëppale mi nu boole jamono ban bokk jamono borom saam daan na moom mii kat ñoo ngi mel ni ku nekkoon ci pind boo xam ne pindub teen boo xam ne gawiku lay bëgg a def waaye ka tax daanuwun ca ba gawi nee na koo kooku mooy borom saam gis nga bi ko Serigne Touba di boole maam Cheikh Ibra Fall doon na ca doy rek benn baat bii fonkal ma señ bi señ borom mam borom sham mi la ko wax nang mako fonkal ta taxawul mako ndax day gor suy jaamu yalla tay dundou ñaqam ñaari séri yit mam Mor Jaara dong nga ko amagul ak sëñ Mbakke Kajoor man nak liberal la ci yoon dama wax na man liberal la moy lu gis lu bax dana ko wax man mom duma ko denc maam ki du ki wala mam dedet ku sa def lu bax ci yoon wii ganna dana ko wax iñaan yooyu du ma fekk ndax loo wax ci seen tedd nga tedd nga sëñ Tuubaa nga wone te mënoo tee mu am jataay bii maam Mor Jaaraa ko moom boo toogoon fee di iñaan ak banku it wa saatul midaani laa yux fiiha ibaau namlatin sulukan fiiha da nga cee gaññee ba dee te du dee borom saam di borom saam mënoo ci dara te kalla wala yu danisul mutahara xawlu sawi dana si ma tatahara ki sëñ Tuubaa tànn mu mag ko bokk ak moom lépp daal boo ko jéemee ginnaaw wala yaay des ginnaaw jamonoy parti nag lañ toll ak propagande nag mbooloo riir yu bari teg dëgg ga fee mais ku mag sëñ Tuubaa doo gone kenn loolu mooy li ma ta dugal ci bopp yi nit ñi ma leen rek dama wax ne ñaari baat yi ci ñaar yii rek laa ko dégg ko muy sëriñ Bakke Kajoor maam jaar Jaara borom Saam Serigne Touba ne na ñaar ñii laa gis ñu dugg ci bàmmeel amee lu ñu yàlla xaq amee lu ab jaam xaq muy sëñ Bakke Yibra ak maam Mor Jaara borom Saam ñaar ñii rek laa gis ñu tabbi ci bàmmeel amee luñ ab jaam àq amee luñ kenn àq nee na mooy borom Saam mii ak sëñ Mbàkke Kajoor muy sëñ Mbàkke Jibla waaye kon dégg nga waxi Sëriñ Tuubaa ji ci Cheikh Ibra kon loola dana ca lan la ko wax kon nanga nga ko fonk te ngir ne day gor soo xam ne day jaamu yàlla tey dunde nag aw ñaxam day jaamu yàlla tey dunde aw ñaqam moo tax bindkat bi nee na sëñ Moor Jaara mooy koo xam ne huwa sayidul mashhur fi naas dikruhu kama xaasa indallaahi aska mawaahib nee na borom saam mooy sang bu siiw ba nga xam ne ci nit ñépp aw turam daj na fa borom saam nee na nim mel ci siiw nag noonee la làmboo ca yàlla gën ngaa tedd ay may kama xaasa indallaahi az aska mawaahib nee na gën ngaa tedd ay may la yàlla defal maam borom saam من وصل جميعنا بحلم نينا اغلبت اكو باخ لا بروم شام غني نيب واي يمو تي و اطعام مسكين و ارشاد الطالب واي جوخي او نيام اك دومل اب طالب نينا كين ميلو تي ني بروم شام من واي يمدي نصيحه في الورى من اقرب او اجنب من مؤمن او فاسق da daan da daan da daan ay laaye biire di jàngal nit ñi moom borom saam di leen wax fi ñu war a teg seen tànk nee moo xam ku ko jege di mbokk wala ku di jàmboor aji gëm nee ku mën a doon boo ñëwee borom saam dana la digal bu fekkee ne mbokk nga dana la wax fi nga war a jaar boo dee jàmboor dana la ko wax boo dee taalib bi dana la ko wax doon ko ne ab kàccoor nga dana la wax yoon wi nga war a jaar te bàyyi lu nee na kon laaye biireeg borom saam ca ñépp lay nekk kon gis nga loolu tax na ba ndénkaan loolu ko sëñ Tuubaa waxoon mooy maam Cheikh na ko nanga ko taxaw ndax day gor suy jaamu yàlla tey dundaw ñaqam li sëñ bi nekk ci géej gi lépp li Cheikh Ibrahima Fall di bay nga xam ne ca bopp jaara la muy bay ñaari cër la koy def benn bi da koy jox maam Thierno Ibrahim ngir njabootu sëñ Tuubaa gi benn bi mu jox ko maam Mor Jaara borom Saam kon déggee nga ci ne kat Cheikh Ibrahima li mu nekk ci li sëñ bi nekk ci géej gi lépp xidma bi mu nekk di liggéeyal Sëriñ Tuubaa ma nga ma ngay wéy ba jël kon ay leeram duppe ko ko yaakaar naa sëñ Mbacke sëñ Mbacke Fall sëñ Mbacke Fall mii way jur sëñ Bachir Fall alxuraan mi mu tudde ko Mam Mor bi mu ko koy tuddee defe naa moog sëñ Morlo moom Thiès mi moom lañ boole tudd na borom sax mu di koo xam ne kon ay jëfam ak meloom ak tolluwaayam waaye ndax moom borom saab jëfam ju màgg jooju boo demee kër sëñ Mouhamadou Lamine ngay Firdawsi fekk fa borom Cham te sëñ Mouhamadou Lamine ngay si kat yaakaar naa gën koo tege ci yoon jafe na sëñ Touba mas naa wax mag ñi ci njëreem ne leen murit balaa doon saadiq day doon saadiq ca boromam ba noppi a doon saadiq jëpp sëriñam daal di gestu sëñ Mouhamadou Lamine ngay Firdawsi na ko Mouhamadou Lamine ngay Firdawsi bu ma ne woon bàyyil julli nooy def sëñ bi ne ko sëñ Mouhamadou Lamine Gueye ne ko boo ma ko bàyyee ba noppi nooy def yow bu ko boo ma ko teree ba noppi ndax da ko wéyal di def sëñ Tuubaa ko bu ma la ko teree dama koy def dama ne ko fee yaa ngi koy def ma koy def kon ndake murit wuute nag waa ji ñëwoon sëñ Tuubaa ko boo ma digaloon ma dem ca teen ba ma dem ca sëñ bi ne ko du ma lagul digal njariñ ni wuute ci yàlla waxu ko jaamu ji di yàlla laa la digal mooy aali yi xew rek sëñ bi laa gëm boo ma waxee nangam ma kii féngale gi taalibe yu bari dañuy jaxase te xamuñu fu ñuy dugg nañu moytu deri kilifa yi ndax deri gor lañ koo tooke deri gor ñi dañ leen a tooke sëb sëriñ damay wax ne ku waggaru sëriñam tamit dëgg sëriñu jàmboor boo gis fonk ku waggar sa kilifa gëm ko gëm nga di dëgg bëgg nga di dëgg foo fekk kilifa ak jàmboor waggar mboolem ku dib murit borom saamay sa kilifa sëriñ Tuubaa nee na ko woon santal yàlla maa sañ ci ñëpp lu kenn sëñul ci man te yow dong nga ko sañ may kilifa ak ñëpp te yaa may yilif te nañu xam ne nag sëñ sëñ sëñ Amadou Tachir Sougou nee na sëñ bi lu mu bëgg nga wax ko rek ngay wax lu mu bëgg nga mel nit ni ngay mel kiriyee moom jëmut ci sëñ bi ak fii ne ku bëgg nga jiitu yaay jiitu ku mu bëggul nga jiitu mënoo jiitu ndax nguur gi nguurug yàlla gi sëñ Tuubaa da caa doonul ab député du ca ay ci digg bi parti bi yàlla bi Cheikhul Khadim loola moo tax kon ku tol noonu nag moo tax ñu waaye nag damay wax ne jàngale mi erreur bi kët bu nu jàpp ne donga yee wala ñenn ñi tey ñu ne woote nañ bis boo xam ne journée culturelle la maam borom saam lañ ko defal ñu ne kuy borom saam ñu ne magi sañ Tuubaa la borom saam nii la meloon jaamu yàlla nii Serigne Touba bis bi borom saam ñëwee ci moom di ko wax liy nuru joxe boppam lan la ko sëñ Tuubaa wax mboolem pays suñ borom yi fu ma fa dem fekk naa fa sa jëf mboolem suñ borom yi fu ma dem rek fekk naa fa sa jëf. mu nangu nag xoolal baax gi ci borom saab mag sëñ bi jàngal sëñ bi bokk ak moom lépp mu woote yoonu yàlla nga jël sa bopp jox ko lu jafee ngoog léegi jamono jii de waxuma la bokk ak nit ndey ak bàyyi muy sa mag boo ko appee xaalis nit ñi yow lañ dul gëm fi ne boo doonee sa jiite sa mbooloom bàyyi te yoroo ñaat gërëm sa rakk yor lu dul jeex kenn du ñëw sa gëm bu seen màggalu bàyyi ñëwee yéen ñaar ca ngeen koy xamee dañ lay rang say bokk di la simili dàll bàyyi sama te say bokk koy def kat di la di la ubbi li bunt di daw di la kar ak naan la sëñ bi yaaram bi ñaanal nu te borom ñaan gaa nga fee waaye amul xaalis boo ko defee nag saytaane yëpp wër nga naan la sa liggéeyum ndaye ñaar ñu bokk ndaye ak baay ni ci kenn ki mën a tippoo liggéey bi bakkee na sa liggéeyum ndaye doo moroomam ñëw ci rakk ji naan ko te nag dañ boole jaxase dañuy ñëw ci mag ji naan ko dalaa xeet adduna kese doo nga la yor bu ko topp bu ñëwee ci rakk ji ne ko dalaa iñaanal li nga yor yàlla la ñuy def waaye mënuloo dara kañ la googu bokk di jag borom saam moom sëñ Tuubaa doo nga am lii sa mag woote sama guy fi ne tendance yi nga gis yëpp da ngay gis rakk joo xam ne ci kaw mag a toog sa far jaxase yooyu bari xanaa kon damay wax ne fu ne la problème war a am si lu ñuy régler waaye yoonu murid moom toppanteeg déggante borom saam andi na ci stratégie bu war a noppal ñëpp moo tax suñ borom saam daana wax ne inal fadla bi yadillah yuuti man yasha ci sëñ Tuubaa laa ko gëmee ndax yaa fu suma yaa fu suma de di nafila téeméeri rakk di jaamu yàlla di boole ko di jël addiya di jox sëñ Tuubaa di lépp loo xam ne nii ab taalibe nga koy def borom saam di jël addiya kenn mënu ko ci addiya te bu guddee ba nit ñi tëdd di nelaw mu taxaw di jaamu borom moo tax lan moo di taggam xaw mun humumu humu billahi xat xoliqat fa maa lahum himamun tasmu ila al ahad فمطلب الخو مولاه وسيدهم يا حسن مطلب لله دي زمدي ما ان في عن دنيا ولا شرف من المطاعم باللذات والولد ولا للبس ثياب فائق انق ولا لروح سرور حل في البلد نغو جاب لغي وخوما لا لول واي جي وخوما لا وخوما لا توب سا توب سا ركري واي بو ام اس خم خم توتي كيب كليفا ندول امدي كليف لو ني واخ غا Do xam top wara top ak ko war a nyepayam ñuy bëgg jangal bop nit ñi ñepp yam ñepp yam bu ñepp doon yam borom sam du jéblu señ tuba diko dox bop bu ñepp doon yam señ tuba du woolu borom sam muy ñew mu wacc togu gim togu sanni ko nako bismillah war ma ko ko diko ko lal borom sam dello ko ko bismillah togal señ bi togu ci borom sam togu ci señ bi diko warmal ci ni moy kilifa mu diko warmal ci cër bi ko kon lolu buñ sa jangon ñu ndawi jamono rek luñ ñu bëgg lépp dana am tege ci yoon bu nu xoolee xoola Cheikh Ibra Fall mi dul julli wóorut ñu ne waaw Cheikh Ibra di julliwut wóorut Maam Mor Jaara mi nafila téeméer rakka borom saam mii Cheikh Ibra Fall naw ko ba tudde koy njabootam sëñ Tuubaa boole koog moom na ko na nga ko taxaw day gor soo xam ne day liggéey day jaamu yàlla tey dindaw ñu xam kon yow nan nga war a gisee Cheikh Ibra Fall moom moo tax boo gisee mboolem ñi nga xam ne am nañ cër ci yàlla ñëpp xam nañ kuy borom saam ci jox ko cër waaye mbooleem ñu am cër ci yàlla ñëpp jox nañ cër maam Cheikh Ibra Fall waaye jamono ji ñu toll day jamono joo xam ne ku xàmmewul foo jëm da nga yàqu riir mi bari na ñiy woote bari na manum lëm mi bari na ku wadd fexe ba lijjanti sab garam bu diw saw yaram ba mu xees nga yor sa course di gàññe ko gëmm ñu naan waajaa ngi mbooloo mi topp la original yaa ngi fi sëriñ manki wut bu taxee na ngay diir mbagg koo wër sa diir mbagg loolu yàqu rek la lay jural loo xamul màndu ci sëñ Tuubaa xam nga ne du togge ci këram gii yor mbanaam yi di sédd kenn di bàyyi borom saam da koo séddal ba noppi di séddale borom saam na ko ginnaaw jox nga ñii naa denc ba ëllëg ginnaaw foofa dara du ko doy moo tax balaa kenn jariñ jaari fa moom rek maa ngi sant bu baax tey gërëm fa mel ni yam na ca képp loolu la ñu waxoon ci waxtu wi di jégglu ci jataay bi di sant bu baax na sëñ Xaadim di ko gërëm moom it bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi di sant kilifa yi fi nekk yépp maa ngi jégglu nag ci waxtaan wi lépp loo xam ne dëng na ci maa ngi koy jégglu lu ci jubit maa ngi yàlla waaye man mii ko wax daal maa ngi seere ci yàlla gëm ko ci barke xadim rasul ne lii may wax dëgg la ci may wax ci borom sax dëgg la ci man ndax man moom sama gëstoo sama jàng jëmut ci kenn ku dul sëñ Tuubaa ak mag ñi ko toppoon donc xalaatuma jëm ci feneen aw ma jot kon loolu ca laa nekk kon noo ngi sant cër boobee sëñ Cheikh Awa Balla ñuy toog mën la caa rek boo xoolee diggante Cheikh Amadou Fadal ak Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Amadou Fadal ak Mamor Diallo damay wax ne tool bu waaye di bayal sëñ Tuubaa wala ngaa wut tool alal ba borom sam tool bu waay fi ne murit tuxit barek mooy maye barke tuxit barek tuxit barek mooy maye barke jékki-jékki dugal dara rek dara am rek nga am dara yoxoo su ndànk ah borom sam mii de ginnaaw bu fi sëñ Tuubaa nekkoon balaa defal kenn dara moom lay defal te mooy kilifa léegi-léegi naay rong ci li ma yor di ko jox genn kilifa nee na woon yàlla may nit muur mu toll ni di xëyal sëñ Tuubaa di gonta Seex Ibra kon loolu jëf la joo xam ne lu ñu góorgóorlu yu baax yaa ngi fi kon yàlla ñu yàlla boole defal ndimbal sëñ Xaadim bis bi yàlla na ko yàgg taxawee tey jii lii moom wane na sëñ Cheikh Baba gisee ngi nii lii wane na ne bu nee Maam Mor Jaara borom sa magi mag dëgg la première édition la bari na bis yu ma fi ñëw waaye yaakaar naa nii mu mel defe nañ ci première édition mel li ma waxoon maam Cheikh Ibrahima Fallum sëñ Cheikh Fall Mbawar mais na ko bis yi nii organisé fii kat bari na waaye sa bos bii ni mu tegee ci yoon jafe na ndax léegi lu ñu woote sëñ Tuubaa solal ko mbubb ba sëñ bi ñëw ñu jël meneen mbubb teg ca kaw waa nag day soof parce que nit ñi dañ lay weddi keneen ko wax duñ ko gëm nit ñi sëñ Tuubaa dong lañ gëm loo leen ci naxee nag nangu nañ te sëñ Bakki Bousso nee na nun ñu daje fi sëñ ñëpp du ñuy waaye sëñ Tuubaa ku woo nit ñi ñu wuy si la yombul ay bokk fi nekk ñëpp fi nekk takkoo gi ak àlloo gi lii daal la ñuy def bind téere ci mag ñi ku soxla Maam Mor Jaara ba koo gëstu dem gëstu ju ko ku bëgg a gëstu bi Ibra Fall dem gëstu ju ko kër gu ci nekk commission culturelle bi taxawal li am nañ xam-xam bu ne lu ñu bëgg a def mën nañ ko def ku bëgg a gëstu ji borom saam doo sonn ñu ne la demal ci téere sàngam nga dem gëstu ji kon sos yeeg wax yu dëgg yu dëgguur yi du du am waaye buñ ne dama bëgg gis suñ borom sax ma ne ko dama seet benn paa benn paa boo xam ne lu ko neex lay wax man de am na bis boo xam ne nee na ma sëñ diw nga ah ah sama maam ba mi ñëw suñ tubaa da doon naaw loolu boo ko defee doo tam sama yow yooyu yëpp la ñuy nett nañuy seet xam-xam yi ñu wóor ñu ko xam ñu di leen ko laaj ñu di ko wax ñu di ko nett wasalaamualeykum wa rahmatullah